eh teg leen teg leen leen teg leen mbaxana mi Gora Sock fils de Balla le 14 août la incha allahu rabi mbaxana bi nag le 21 novembre dañ ko commencé woon di xëccoo Iba Mar Diop ba arène nationale le 14 août kan moo yóbbu mbaxana bi. man doomu géejewaay bi moo yóbbu mbaxana bi. le 14 août dama yóbbu mbaxana bi te dafa dafa dafa te naa ko yar le 14 août incha allah rabi. mënoo maa jaxaseeg Sénégalais yi dama lay la. tas. kii tapet la morom muy forcé nii mais le 14 août xam ne ba si góor koy bay a mbokk yi jamaykee moo woote ànd ak jam production la 14 août fils de Balla ak Gora Sock waaye jamaykee yamul foofu kéwél laay jël daal di koy boole ak jokkeel mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a ame yéen ñi nekk ci diaspora bi jamaykee nee na 4 virgule 99 euros ngeen ko mën a seetaanee waa Sénégal 2000 francs dong kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 14 août arène nationale fils de Balla ak Gora Sock jam production ak sponsor leader bi tuuti chic eh Omar yaa ngi yàq sama sañse bi de waaw su baaxee xaaral sa waay jox ma kii jox ma si ñaan non ci kaw jërëjëf mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek waxtaan nañu ak Sa Thiès waaye ndayu mbili gaa ngi nii di Balla Gaye numéro 2 comme ni ma ko waxee rek jàkk sa adversaire ngeen wane fit wane jom wane njàmbaar ba yàlla may la ndam ci kawam Sa Thiès nag nee na li ko ci gën a neex mooy ponkal daanu na ci arène bi mooy Gris Bordeaux moom mosut a gis mbër daan ba toog ci kawam tey yàlla dogal na loolu ci yow dañ lay féliciter di ko encourager bàyyi la nga nuyoog waa àdduna ñu so su ko defee ñu waxtaan. jërëjëf Lamine maa ngi lay sant baax gërëm di gërëm diaspora bi bu baax a baax a baax ndax euh, sant naa leen gërëm naa leen suma fans club international maa ngi leen sant Serigne Ndiour ñëpp xam nañ ne Balla Gaye moo ko jaral lu mu ñëw fii di saan komba bi Pape na ah Tony Ndiago bu sëñ Fallou bu ma limee sax naa juum mais groupe bi maa ngi leen sant di leen gërëm chinois yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm dañuy kenn ku nekk yëkkati xaalis di ma ko jox di ko dimbalee am naa ko nag maa ngi koy sant mais seen geste dafa rafet ñoom ñëpp corriger ngir lan encouragement loolu maa ngi leen ci sant di leen gërëm di gërëm samay supporters yëpp ñi fi teew ñëpp rawatina écurie Balla écurie école de Balla Gaye Lamine Golo ñëpp ñi fa nekk gërëm bàyyi ma jigéen bàyyi mënu ma lim daal vraiment maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di encouragé samay supporters di encouragé samay supporters bu baax baax di leen ñaanal jàmm gis naa mobilisation bi gis naa niñ ma bëggee gis naa fuñ ma teg di encouragé suma adversaire Gris Bordeaux xam ne li sport la yàlla moo ñu boole woon ci li ñuy liggéey euh, yàlla may na ma ndam maa sant bu baax di ko encouragé waaw. nga jóge woon ci combat sa diggante bombar Bombardier yàlla dogal nga perte combat boobu critique yi bari Balla kontaagul Balla entraîné wul demul écrit ba nga rectifié wu quelque temps après dañu gis Balla Gaye wàññeekuwaat écrit ba di ànd ñi nga xamante ne ñoom la yàgg di àndal di am di di am ndam ndax critique yooyu noonu dañ cey jàngat wala dañ ko waxoon nga mer nga xam ne li ñu wax. non du loolu sax man du ma mer ci sport ndax lu ma am sport ma ko may donc àdduna ak critique ñoo ànd mais xam nga nit moom euh, lu war a am rek day am mais àdduna moo demee noonu critique mun koo ñàkk man damay gërëm suma staff ñoom ñi nga xam ñoo naan dégg lu ñaaw te dinañ dégg lu neex ñooñu laa ñoo ma jaaxal ñooñu laa amul seen fay parce que dañuy def tout pour ma am ndam ngir supporter yi bëgg donc ñoom ñoo moom victoire bi lii du victoire dara man loolu laa jàpp toujours victoire dara mais pour samay supporter rek ak su ma staff ak su encadrement ñoom laay jéggul toujours nee naa la mbër dootuma yëpp Sénégal ndax lu bëri dafa naan dal moo koy continuer di blessé di def loo xamante ne waruma ko def moo tax yebeel am mais yebeel dootul am incha allah. ni nga abordé combat bi. non sa waay xeex. est-ce na yoon ah, da nga bëgg xeex am njaay joxul job mënut a ñàkk ci àdduna parce que nit ñu fay la xaalis amateur nekk fi donc da ngay am njaay joxul job ba mu bëggee jeexal combat jeexal naa ko. Baye Ndiaye tax na rëpp ci combat bi. mooy loolu Baye yow loo wax gërëm bi ngeen ko daanee. ñëwal kër xaaral mu dindi kii bi affiche bi affiche bi na ko dindi affiche su Gris Bordeaux kii bi waa taxawal jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk internet mbokk amateurs yi ñu doon bàyyi xel Lutte TV point com ak ñu bàyyi seen affiche point com mbaa xam ngeen ne bëgg nañ ci yéen waaye bëgg naa tamit ci ki nga xamante ne tey moom a génne fii di ki nga xamante ne moom mooy moo Ndiaye directeur Série Mado ah Omar Wali Fashion ñaw ko waaye kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax a baax a baax baax di wax ne nag li ngeen soxla rek loolu lañ leen di jéem a jox waaye nag diggante Gora Sock ak fiis de Balla Jamaïcain moom moo ko tëgg mu nekk drapeau Serigne Cissé bu Serigne Babacar bu leen ko fàtte ah mani seen affiche man affaire daal wax dëgg yàlla du ay xëccoog yooyu noonu mais nag seen affiche moom bu ñuy wax pay per view xaw ma leneen de lambu seen affiche ku bañ gàcce da ngay moytoo tooñ seen affiche tooñ ñu kenn jërëjëf kontaan ci yéen. my face. ok eh, teg leen teg leen teg leen teg leen mbax na mi Gora Sock fils la incha allahu rabi mbax na mi nag le 21 novembre dañ ko commencé woon di xëccoo Iba ba arène nationale le 14 août kan moo yóbbu mbax na bi yóbbu mbax na mi. le dama yóbbu mbax te dafa dafa dafa yara di ko te naa ko yar le 14 août incha allah rabi. mënoo maa jaxase ak sénégalais yi dama lay tas. kii tapet la morom muy forcé nii mais le 14 xam ne ba koy bay a ah, mbokk yi Jamaïcain moo woote ànd ak jam production le 14 août Fils de Balla ak Gora Sock waaye Jamaïcain yemul foofu kéwél laay jël daal di koy boole ak Jokkel mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a amee yéen ñi nekk ci diaspora bi Jamaïcain nee na 4 virgule 99 ngeen ko mën a seetaanee waa Sénégal 2000 francs dong kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 14 août national nationale Fils de Balla ak Gora Sock jam production ak sponsor leader bi tuuti chic e teg leen teg leen teg leen teg leen mbaxana mi Gora Sock fils de la incha allahu rabbi mbaxana bi nag le 21 novembre dañ ko commencé woon di xëccoo Iba Mar ba arène nationale le 14 août kan moo yóbbu mbaxana bi. man doomu géejuwaay bi moo yóbbu mbaxana bi. le 14 dama yóbbu mbaxana te dafa dafa dafa yara di ko te naa ko yar la 14 août incha allah rabbi. mënoo maa jaxase sénégalais yi dama lay la. tas. kii tapet la moroom muy forcé nii mais le 14 août la ñuy xam ne ba si góor a koy bàyyi ah mbokk yi Jamaïcain moo woote ànd ak jam production la 14 août fils de Balla ak Gora Sock waaye Jamaïcain yamul foofu kéwél laay jël daal di koy boole ak Jokkel mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a amee yéen ñi nekk ci diaspora bi Jamaïcain nee na 4 virgule 99 euros ngeen ko mën a seetaanee waa Sénégal 2000 francs dong kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 14 août arène nationale fils de Balla ak Gora Sock jam production ak sponsor leader bi tuuti chic